asubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa ñëpp ziare leen macha allah maa ngi tudd soxna Thian Sakho di doom ci naa Alioune Sakho macha allah ah tabarakallahu ñu doon ko ñaanal takk tey suñu wayjur woowu nga xam ne macha allah bis bu nekk rek euh, ñuy fàttaliku ci moom lépp loo xam ne ngëneel la macha allah mu nekkoon wayjur woo xam ne tabarakallahu dañ koy ñaanal yàlla yokkal ñu leeram taas ñu ci barkeem yeesal yërmandeem bi ndax wayjur la woon woo xam ne macha allah bëggoon na njabootam lool tabaarakallaahu teg njaboot gi yëpp ci yoon te du la dóor du la xas tabaarakallaahu du la jànne léppam sutura la koy waxtaane ak yow léppam ci foo ak kaf ak di def ngay gis la koy waxtaane yow mu nekkoon wayjur woo xam ne comme niñ ko waxee tey rek alxuraan rek macha allah moo doon moom alxuraan la woon moom ci boppam alxuraan la ndax lépp lu alxuraan digle mi ngi ci woon lépp lu alxuraan tere mu ngi ci woon te tam jamono bu nekk rek mu ngi jàng alxuraan mu ngi digle jàngale al mu ngi jàng alxuraan te mu ngi koy jàngale macha allah. kon daal ñun dañuy sant yàlla bu baax bi nga xamee ne yàlla jox nañu wayjur yi nga xam ne mooy Seex Seydi Alaaji Alioune Saaxo muy wayjur bu baax wayjur wu lewet wayjur wu bëgg njaboot wayjur wu ñeme njaboot waaye wayjur woo xam ne bëgg yàlla bëgg euh, yonent bi sallallahu taala sallam bëgg cheikhu tidiane chérif bëgg sëriñam Cheikh Seydi Alaaji Omar radiallahu taala anu macha allah bëgg tamit ay mbokkam yépp nag nekkoon koo xam ne daal royukaay la côté boo jël rek mën nga ko cee roy macha allah lépp loo xam ne jox njabootam soxla na ko taxaw na ci lépp loo xam ne mbokkam soxla na ko tabaarakallaahu taxaw na ci nekkoon tamit ku joxoon kil euh, kilifteef maanaam maanaam joxoon cër kilifaam magam suñu baay alhaaji Modou Bousso Sakho ma nga xam ne ñoo bokkoon ndey ak baay macha allah mu jàppe woon ko sax comme baayam macha allah jëlutoon benn cër lépp mu bàyyi woon ko ko moom tamit njabootam noonu lañ ko joxee cër bàyyi ba nga xam ne tabaarakallaa ñun daal sant nañ gërëm nañ te kontaan nañ tey jii tabaarakallaa ñu ngi ñaanal suñu xalifa alaaji góor gi Sakho suñu mag yàlla yàggal ko fi lool te may ko tawféex ndax ñun dañoo foog nañ ne Cheikh Seydou El Hadj Alioune Sakho demut ndax comme ñu ngi gis góor gis njàng Sakho ñu ngi gis Baye Omar Sakho mu ñu taxaw seen taxaw taxawaayam macha allah wuutu ko ci côté bu ne nag lépp loo xam ne mu nga ca woon rek bëggoon na ko ñu ngi ce waaye lépp loo xam ne bañoon na ko doon ko dàq rek ñu ngi koy dàq ci famille bi kon ñu ngi sant di ñaanal ñëpp tawféex di ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm njub ak juboo mucc ak muccule kàttan ak kaaraange na ko yàlla dolli ci famille bi dolli ko mboolem jullit barkeb rasulullah warmaa Cheikhu Tidiane